waay waay ab sëriñ bu ñaawee bu muy dem baas na yónni waaye kii ñu am ah il est beau il est gentil il donne de l'argent ah sëriñ Ahmadou Touré le grand ki nga xam ni daal mooy faj aajo yi ki nga xam ni daal ku jàkkaarloog moom ah xam ni jàkkaarloog nga nag nitu yàlla ma jéem a jóg jamaar ji may bëgg a wayal lislaam la jàpp moom la imaamu ahmadu ture dundal nga lislaam bi fu ne afrique la war ba dem gine ci réew mi foofi dem fu ne xam nanu seex ahmadu ture loo doonu toon ab taalibeem doo mën a doon ab sëriñam laxasu rekk a tax nga am cër bii nga am ci waa Touré alxaaji Boubacar Touré mooy waa juróom ci waa Touré moom mus la dox ci puukare jaaraama Ahmadou Touré Cheikh Ahmadou yow sa kër maam ba kumba mooy sa cosaan Europe Italie ak France xam nanu Ahmadou Touré am na ngërëm ci waajuram daa toppi woon ay ndigalam moo tax mu am cër bi mu am jaajëfe Ahmadou Touré jàkka yi xam nan waajuram jumaa xam nan waajuram yàlla ak yoneen ba rek la gëm alxaaji Boubacar Touré yi xam nañ waa juróom jumaa xam nañ waa juróom yàlla ak yoneen ba rek la gëm alxaaji Boubacar Touré jàkka ju mag jee fa maris sabaay bu baax ko tabax danaan waxit lii ma tabax yàlla yonen bi rekk alaaji Boubacar Touré na loxo yi def ni ñu màggal Cheikh Ahmadou Touré maamam ja Cerno moo gosit maam soxna jaara mooy samaam taalibe baay nga taalibe baay nga taalibe baay nga taalibe baay nga taalibe baay loxo yi ca kaw ñu màggal baay taalibe baay moom la am jaajëfe Cheikh Ahmadou Touré daa fonk lool ay waajuram te fonk lool ay xaritam di toppatoo ay dëkkandoom jaaraama Cheikh Ahmad Touré daa fonk lool ay waajuram daa fonk lool ay xaritam di toppatoo ay dëkkandoom jaaraama Seex Ahmad Touré tiijaan yi ñoom jox nan la cër murid yi tam nan la cër taalibe yi bàyyi jox la cër jaajëf Seex Ahmad Touré yal na la am yàlla teral yal na la yónneen ba teral yàlla la seex baraxam cëral amin ci barke waa Ture yàlla la buur yàlla teral yàlla la yonent ba teral yàlla la seex baraxam teral amin ci barke waa boo déggee ñu wax lii seex bi maa ngi jéggulu teewlu ma béy bi ànd ku baax li tax bu baax mooy lii lii ma yor nii sa dëkkandoo ju baax jii di sab xarit sëriñ ahmadu sugu doon kenn ci yow dani ma waaw daam yow la nga daan wax xanaa mënoo ko wax ci jëmm ji ma ni ko lan mu ni ma ah nga bind ci bayit rek ma ni ko sëñ bi ci oto di mu ni bindal rek yéene laa ko binde waaye dug man waaye nag bi ma ne bindal moom te ngeen ànd yéen ñaar laa mën a bind kon yàlla naa yàgg mën a bind sëriñ bi loolu rek laay ñaan ma saf ñépp la ma saf ñëpp am xorom bari bayre ñëpp topp ma naan daam jeng anamu fu mu ne ana ki doon way lii na dikk fu mu toog dikkal loolu rek laa bëgg Modou Mbour kaddu gaa ngoog la ilaha oh. wuy ma eh eh eh Thierno loolu dina ci def dara nee na dogg na ci lépp di ko am di nga yokk waaye nag ñu déglu sëriñ Ahmadou ñu déglu waaw attentivement nañu déglu imaamul akbar sëriñ Ahmadou Touré sànni ci kaddu alhamdulillahi hamdan kaafi ma tazaayada min alnicmi walshukru lahu ala ma awlaana min alfadli walkaram laa uxsi sanaan calayhi aw kama asnaa ala nafsi wa nasaluhu allutfa walicaanata fi jamici alaxwaali wa xaali hululi alinsaani fi ramsi walsalaatu walsalaamu ala sayidina muhammadin sayidi alawalina walaxirin alladi buisa fi lummiyina rasula wa unzila alayhi alquranu shahidan wa dalila wa daaciyan ila allahi biidnihi wa sirajan munira فمدحه سبحانه وتعالى في خلقه وخلقه وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فقال العارف البصيري فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم وقال عارف آخر فلولاك يبقى الحق حقا وما دري فلولاك يبقى شيئا عن مواصلي وقال تعالى في حديث الرباني كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي يعرفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dañ doon barkeeloo ci kalaama ak kalaama arab bi rek tuuti ne dañ doon barkeeloo ci kalaama kalaama arab bi tuuti te sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne. ne sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni. bëgg leen arab ngir ñetti mbir. ne arab ngir ñetti mbir. man arab laa ndax man sallallahu alayhi wa sallam arab laa alquran arab la alquran la waxu waxu ñooñu ajjana arab la ne waxu ñooñu aljana arab la buñ toogee ci jotaay bu mel nii ne suñu toogee ci jotaay bu mel nii sama mag mag baax ba di sëñ Ousmane ne magam ju baax ji di Cerno Ousmane tuddee tur bi bis bi euh, bisu cant. ne bis bi mu tuddee ko bisu cant. démb démb ci guddi. démb ci guddi. biñ ko waxee lépp. ne biñ ko waxee lépp. dafa ne. dafa ni. bis bi daal. bis bi daal. tuddee naa ko bisu cant. tuddee naa ko bisu cant. ndaxte moom xam xam na li ko lal. moom Thierno Ousmane xam na li ko lal. te borom bi dafa wax ne. borom bi dafa wax ni wa amma bi nicmati rabbika fa xaddis wa amma bi nicmati rabbika fa xaddis su la yàlla joxee xéewal santal su la yàlla joxee xéewal santal yonent bi firil ñu ko ne sallallahu alayhi wa sallam firil ñu ko mu ne attaxaddusu bi nicmatillahi shukrun mu ne attaxaddusu bi nicmatillahi shukrun waxtaane xéewalu yàlla lool loolu de mooy cant ne waxtaane xéewalu yàlla yi loolu mooy cant noppi ko nag loolu kufrun nee noppi ko nag loolu kufrun loolu weddi la loolu weddi la suñ diggante nag ak sëriñ Omar nee seen diggante ak sëriñ Omar lépp dañ koy delloo ci waju sukri mooy ci kanamu sant yàlla nee lépp dañ koy delloo ci waju sukri mooy ci sant yàlla li ñu waroon wax yépp ci xam-xam ñoom wax nañ ko nee li mu waroon a wax lépp ci xam-xam ñoom wax nañu ko waaye sama diggante ak Omar dinaa ci wax lu ndaw. sëriñ bi ne diggam ak Omar dina ci wax tuuti. ndaxte bi yàlla defee ñu jaxasoo ca ndakaar ne bi yàlla defee ñu jaxasoo ca Dakar. ba la ca xew yëpp xew ca. la ca xew yépp xew ca. yàlla dogal ma ànd ak moom ñëw fii ziyaar góor gi. ne yàlla dogal mu ànd ak moom ñëw fii ziyaar góor gi. mu ne ma Omar daal. mu ni ko Omar daal jëbbal naa la ko jébbal naa la ko boo nekkoon ndakaaru ba mu neex la boo nekkoon ndakaaru ba mu neex la nga indil ma bopp Omar nga indil ma bopp Omar ne ma rendi naa ko ni ma rendi naa ko ma xam ne loolu moo jaadu woon ci moom bis booba ma xam ni loolu moo jaadu woon ci moom bis booba kon loolu dafa am lu muy jàngale ak lu muy tegtale ne loolu dafa am lu muy jàngale ak lu muy tegtale kon nag ñun juumul ne kon moom juumul yàlla nag du juum ne yàlla ci boppam du juum kon alhamdulilahi rabbil alamin kon alhamdulilahi rabbil alamin su ko defee nag sëñ bi ne su defee nag jotaay bi jotaay bi jotaayu cant la ne jotaay cant la. ak nemmeeku mbokk yi. ak nemmeeku mbokk yi. te rasulullahi moo ñu jàngal nu ñuy sante. ne rasulullahi moo ñu jàngal nu ñuy sante. kon sama nijaay Cheikh Omar Sall. ne nijaayam Cheikh Omar Sall. da cee fentu way way ci rasulullahi démb. ne da cee fentu way way ci rasulullahi démb. mu ne ma dédicacé naa la xasida euh, bi mu ni ko dédicacé naa la xasida bii ma wax sama mbokk meedi Thierno Bachir nekk imam ca Dubai ne mu wax mbokkam Thierno Bachir nekk imam ca Dubai yàlla indi ko mu tombeek bis bi yàlla indi ko mu tombeek bis bi ma ne xasida bii dinañ ko muul mu ni xasida bii des na ko mool def ko mu nekk cëslaayu bis bi nga xamante ni mooy bisu cant bi ne def ko mu doon kislaayu bis bii nga xam ni moo doon bisu cant gi. ci Dubaay laa bëgg ñu muulee ko. te nee ci Dubaay nag la bëgg ñu muule ko. lii nag ay xéewalu yàlla la. nee na lii ay xéewalu yàlla la. lu ñu yàlla jagleel. lu ñu yàlla jagleel. ñun xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag. ñun xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag. lépp lu ñu am ci xéewal. lépp lu ñu am ci xéewal. ah xam nañ ne suñu yonent bi li moo ñu ko liggéeyal de. eh xam nañu suñu yonent bi moo ñu ko liggéeyal. moo tax kéemaan gi feeñ ci bis bi. moo tax kéemaan gi feeñ ci bis bi. xam nañ ne bis bi saf na sàpp ak rasulullahi. ne xam nañu bis bi saf na sàpp ak rasulullahi. te xolu jullit yi nag rasulullahi moo ci ne. ne xolu jullit yi rasulullahi moo ci ne. ndaxte yàlla dafa wax ci alquran ne. ne yàlla dafa wax ci alquran ni. inna alladina amanu wa amilu saalihaati sayaj'alu يلههم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله لهم الرحمن ودا لهم الرحمن ودا képp ku roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoom ak ay meloom képp ku roy yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci jikkoom ak meloom yàlla defal la li ñuy woowee wuddu ne yàlla def la defal la li ñuy woowe wuddu mooy cofeel mooy cofeel ci xolu jullit ñi ci xolu jullit yi borom bi subhaanahu wa taala ne borom bi subhaanahu wa taala mu woowaa asamaan mu woowaa asamaan ne leen sopp leen diw mii ne leen sopp leen diw mii woo ñu ñu suuf woo ñu ñu suuf ne sopp leen diw mii ni sopp leen diw mii loolu la suñu mag ñu baax ñi am ne loolu la suñu mag ñu baax ñi am ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba xamal ne ragal yàlla ak jaamu yàlla rek la jàngale ne ragal yàlla ak jaamu yàlla rek la jàngale tax mu wax mu way ci wax ci benn wayam ne moo tax mu wax ci benn wayam man lam yaxsha rabbal aalamiina fa laysa bi aalimin man lam yaxsha rabbal aalamiina fa laysa bi aalimin bi aalimin walaw afna alfunuuna walaw afna alfunuuna mu ne bu la neexee nga jàng xam-xam yëpp ci àddina ne bu la neexee nga jàng xam-xam yëpp ci àddina bu neexee nga dàq wax ñëpp waay waay bu neexee nga dàq wax ñëpp waaye boo ragalul yàlla. boo ragalul yàlla. doo borom xam-xam. doo borom xam-xam. ndaxte yaw doo jëriñe dangay ngay lore. ndaxte yaw doo jëriñe da ngay lore. loolu nag alqur'aan la. nee loolu alqur'aan la. innama yaxsha allah min ibadihi al ulama. innama yaxsha ragal yàlla daal dëgg-dëgg mooy borom xam-xam yi. ñi ragal yàlla daal dëgg-dëgg mooy borom xam-xam yi. kon wax ji nag méngoo na. nee wax ji kon méngoo na. ku ragalul yàlla boo amee xam-xam amoo xam-xam. nee ku ragal yàlla boo amee xam-xam amuloo xam-xam. kon nag ñu ngi sant bu baax borom dëkk bi. nee ñu ngi sant bu baax borom dëkk bi. ci wàllu diine. ci wàllu diine. mu nekk euh, sëriñ. mu nekk sëriñ Mamor. Mbacke. Mbakke ñu koy ziyaara ñu ngi koy ziyaara ñu ngi koy tatagal ñu ngi koy tatagal ah, ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla di di ko sakku mu dolli ñu ñaan nee ñu ngi sakku ci sëriñ Mamor mu dolli leen ñaan dañuy wax ne dañuy wax ni borom xam-xam yi nekk ci Sénégal yëpp wala ci àddina yëpp nee borom xam-xam yi nekk ci senegal yëpp wala ci àddina bi yëpp ñun ñun suñu mission. suñu mission. fa ñu nekk. fa ñu nekk. ñu nekkal leen. ñu nekkal leen. seen i seen i ndigal. di leen dimbali. di leen dimbali. mission bu mag bi leen yàlla dénk. ci mission bu mag bi leen yàlla dénk. ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. kon ñun ñoom lañ toogal fële. ne kon ñoom lañu toogal fële. kon ñu leen di nee ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Mamor. te boroom xam-xam ci biir gox. nee boroom xam-xam ci biir gox. dafa mel ni. dafa mel ni. biddiw. biddiw. nu muy leeralee. ni muy leeralee. wala wala wala weer nu muy leeralee suuf suuf. wala weer ni muy leeralee euh, suuf. borom xam-xam ci biir gox noonu la mel. nee borom xam-xam ci biir gox noonu la mel. wala misaal bi ñu ne gouverneur ni mu mel ci gox ba mu ne. wala ñu ne misaal bii gouverneur la mu na mu mel ca gox ba mu ne. moo représenté état bi. moo représenté l' bi. kon nag borom xam-xam ci gox. nee borom xam-xam ci gox. moo day yi dañ koy firil liwaawul xamdi. nee malaaka yi dañ koy firil liwaawul xamdi. ñu wax ne moom ñu xamal ne ñu xamal ko ne moom moo représenté yàlla ci gox bi. waaye waaye ñu xamal ko ni ko yow yaa représenté yàlla ci gox bi. kon alhamdulilah. ñu bañ a guddal. ñu bañ a guddal. Euh, xanaa ay kaddu sant rek mbooloo mi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk. sëriñ bi nee xanaa kaddu cant sant mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ fi fekk. ñu ci jiital suñu way jur bu góor bi. nee ñu ngi ci jiital suñu way jur bu góor bi. ak suñu way jur yu jigéen yi fi ne. ak suñu way jur yu jigéen yi fi nekk. seen dëkkandoo yëpp. seen dëkkandoo yëpp. di sant bu baax a baax. di sant bu baax a baax. mbokk yi nga xamante ni ñoom lañu fi àndal. mbokk yi nga xam ni ñoom lañu fi àndal. ah ñu bàyyi seen yitte. ñëpp ñu bàyyi seen yitte. te ñu xam jamono ni mu xatee. te ñu xam jamono ni mu xatee. ak yitte yi ni ñu ak yitte yi ñi mu bare ku la mën a may rek benn waxtu ci temps. sëriñ bi ne ku la mën a may benn waxtoom ci temps. kooku fonk na la. kooku fonk na la. kon seen dëgg-dëgg amuñu seen fay. waay waay yéen ñi ànd ak sëriñ bi ne dëgg-dëgg amul seen fay. ku fi ñëw yaa def sa oto essence. ne ku fi ñëw yaa def sa oto essence. indaale ay nit. indaale ay nit. waaye itam indaale yóbbal joxe joxe joxeaale yóbbal. waaye waaye bi ngay ñëw nag indaale nga ab yóbbal. kon loolu dara mënu ko fay. sëriñ bi ne loolu dara mënu ko fay. xanaa di wax rek bëgg nañ. xanaa di wax ni bëgg nañ. ndaxte mbir mi comme que yàlla kese la. ndaxte mbir mi comme que yàlla kese la. jokk jokk mbokk kese la. jokk mbokk kese la. ah alhamdulilah ñu ngi ñaan lépp luñ ci am ci yiw ne alhamdulilah ñu ngi ñaan lépp luñ fi am ci yiw yàlla na leen borom bi sédd ba mu fees ci yiw boobu ñoom yal na yàlla sédd leen ci yiw woowu ba ñu feesal dal ku am aajo ci mo ci ñoom waaye waay képp koo xam ni am nga aajo ci ñoom yal na yàlla faj aajo boobu yal na yàlla faj aajo boobu suñu sama jigéen yu baax yi tam maa ngi leen di gërëm di leen sant ne jigéen yu baax yi mu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen taxawaay. mu ngi rafetlu seen taxawaay. ak cofeel bi ñu am ci man. ak cofeel gi ngeen am ci moom. yal na leen yàlla sàmm ñoom ñëpp. yal na yàlla sàmm leen yi ñàpp. jigéenu dëkk bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara. jigéen ñu dëkk bi ñu ngi leen di nuyu ak di leen ziyaara. ah di leen wax rek ne. di leen wax ni teraang gi yëpp ñoom ñoo ko moom. teraang gi yëpp yéen a ko moom. ñun de lu ñuy jéem rek mooy taral leen yéen jigéen ñi. waay waay nee na ñoom li ñuy jéem mooy tëral leen yéen jigéen ñi ndaxte rasulullahi moo ñu ko digal ne Seydina Muhammad rasulullahi moo leen ko digal kenn du leen teral ku dul ku tedd kenn du leen teral ku dul ku tedd waaye kenn du leen toroxal ku dul ku yaa ku yées kenn du leen toroxal ku dul ku yées ndax ndaxte jigéen jigéen mooy kanzul aalam mooy kanzul aalam fa la borom bi di denc ay mbootam fa la bi di denc ay mbootam moo tax moo tax fonk lañ waaye waaye sëriñ bi ne yéen jigéen ñi dañ leen war a fonk. waaye itam jigéen war na xam boppam. ne yéen jigéen ñi war ngeen a xam seen bopp. xam li ko yàlla jox. xam li leen yàlla jox. xam valeur xam seen valeur. moom mooy mooy jur ku yëlif àddina bi yëpp. waaye waaye yéen jigéen ñi yéenay jur ku yëlif àddina bi yëpp. kon nag war nañ góorgóorlu. nee na ngeen góorgóorlu. yàlla na yàlla taxaw yéen ñëpp. yàlla yàlla na leen yàlla taxaw yéen ñëpp. ñu ngi bëgg gërëm di gërëm sama xarit moom tam si Ahmad Sugu ne xaritam Serigne Ahmadu Sugu moom Serigne Mama Sugu moom Serigne Mama Sugu borom waadaan borom waadaan macha allah macha allah ñu koy wax mention spéciale ah Serigne Ahmadu ah Serigne bi nee na mention spéciale waaw waaw ñu ngi nuyu di gërëm ñëpp ne ñu ngi nuyu di gërëm ñaap bëgguñ dugg ci lim bi sax ne bëgg noo dugg ci lim waaye day yóbbaale ña ca des. waaye day yóbbaale ña ca des. ndaxte li ma wax rek. ndaxte li ma wax. lii daal kenn mënu ko fay. lii daal kenn mënu ko fay. docteur mii nga xamante ni docteur la ci gox ba mu ne. ne docteur mii nga xam ne. docteur la ci gox ba mu ne. lu bëri aju ci moom. lu bëri aju ci moom. mu bàyyi te yooyu yëpp. mu bàyyi te yooyu yëpp. xam ne ak ak ak ñoom ñëpp rek. waaye waaye ak ñoom ñëpp. waaw kon loolu alhamdulilah. waaye waaye sëriñ bi ne na leen gàttal rek foofu nee ñu gàttal foofu di wax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin di wax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu xanaa nag tàllal loxo yi rek a des lii fi xew tey jii muy ñëw imaam bu njëkk ci dëkk bii di Touba Toul ak ñii mu àndal ak ñi ko fi fekk ak ñi ko teeru yaakaar naa lii ku mu dalul sa xel leneen du dal sa xel lii ku mu neexul soxor rek kay metti lii kenn mënu koo tee dem kanam ñun ci jotaay yu mel nii rek la ñuy nekk ku dégg suñu kaddu xam ni waay waay kaddu gi moom dee na ba néewut bi waaye dafa am jëm yoo xam ni ku jàkkaarloo ak ñoom wala ngay wax ñu di la dégg waaye waaye bu nuy ñaan boo duggalee sa aajo yàlla de faj aajo joo cel na wax na ko ñëw na fii di dëkk boo xam ni mus ni fee mooy yàlla dëkk la boo xam ni ñoo ngi fi doog a agsi waaye waaye nanu ñaan aajo yëpp faju ñu ñaanal sëriñ sëriñ sëriñ Ahmadou Touré mi toog ni asamaan daal muccee ci max yàlla ni muccee xasida bu neex bi. nee borom xasida bu neex bi. xam ne way na. te xam ni way na. te li ko gën a neex ci wayam. te li ko gën a neex ci wayam. wax ci jëmm góor gi. nee dafa wax ci jëmm góor gi. nee di way juram di seen way jur. loo xamante ni waxam la ci làmmiñam la woon. nee loo xam ni waxam la woon ci làmmiñam moom góor gi. saw ma ko ko waxuma ko ko man. nee na moom Serigne Ahmadou Touré sawu ko ki doon jàng de waxu ko ko de. nee na yëgu ko. xol. ne loolu tooyal na xolam. moo tax li wax ne warlul nañ ko li mu wax. ne li Cheikh Ousmane wax ni warlul nañ ko li mu wax. soxlaam boobu. soxlaam boobu. nañu ko warlul loolu. nañu ko warlul loolu. yàlla yëkkati ko. yàlla yëkkati ko. yàlla fëlal ko ci addina ah yëkkati ko ca kaw a kaw aar ko incha allah xaaral ma jugaale xaaral ma jugaale ne buñ fi dellusiwaatee nee dina toog ne alhamdulilah aajo boobu faju na nee dootul am jot mani duma am jot yee doo am jot duma am jot ah ah eh eh lay ku yuuta neex a jàngal li ni waccoo de eh Baye Niass Baye borom télé bi mu ngi kalaame mu ngi wax de nee na nee na bis bu delsee ñu del siwaat fi def lu mel nii mu ni ko nag ah, ah loolu waxoon nañ ko de waxoon nañ ko de dañ ko dañ ko biraluñu ko woon de biraluñu ko woon dañoo waxoon ne dañoo waxoon ni gaa yu baax yi ñu àndal fii fu ñëw bàyyi fa trace ne marqué nañu seen empreinte fii tey kenn du leen fàtteeti mukk kon nag loolu tënk na chaque année ça sera une une grande chante. balaa muy tëj Mouhamad Bachir mii sunu xarit bi nga xam ne dafa jóge ba Dubaay ñëw fekk Baye Niass ne Mouhamadul Bachir bàl leen tuuti dafa am imam boo xam ne daa jóge ba Dubaay te imaamu Dubaay nag moom bu dee wax des koy déglu ah xam ngeen ni Dubaay imaam ba fa bàyyi ko ñëw ah na ko ñëpp déglu ku déggul Dubaay nag xam nga Dubaay ah nee ñoom ñaar ñoo bokkoon di jàng ak imam Ahmed mi nee na seen xarit la seen wëllëre la mu nga dëkk ca Mauritanie waaye Dubaay la toog foofu nga nekk di fa jiite juma di fa jàngale ne yàlla defoon nga ñëwoon Mauritanie mu ne du ñibbi mukk te seet si wul imaam mu ñëw tombe jotaay bi foog mu ñëw mu ñëw ànd ak soxnaam ak ay waajuram moom it kenn la ci ñoom moo tax dañ koy bàyyi mu sànni ci tuuti imaam tëj mu ne Amadou mii dafay magam di kenn ci moom mu ne ak alaaji Ousmane lii toog mii toog ci suñu wet moom it dafay magam di xaritam di kenn ci moom jinnaɗam jinnaɓam goni ko ko mauritani konde garmi sénégal nde mi ala toon hakkuɗeji hay goto minen jangguiɗat noon mbuur mu ne ba yàlla defee mu jógee mauritanie ñëw fii di jàng mbuur amu fi mbokk amu fi kenn ku dul ñoom ñaar ñii te somi boto wonno tribile no feewi ko kamɓe goyata walla kamɓe mu ne yàlla dafa defoon moom ba mu nekkee ci daara di jàng dafa nekkoon xale bu bu bu të waaye buñ ko dóoroon sax ñi ñooy taxaw dimbali ko mu ne Amadou mi buñ ko dóoroon day jooy jooy yu métti mu ne Amadou li ñuy xam ci moom mooy jub mm. minen temedere somin mbaɗino fof min mbaɗa min mbaɗa hunde ceerno so wiya men ni ko amadou haali rek ceerno wiyata ko amadou haali o ɗum woni gonga nee ba ñuy nekk ci daara ji mën nañu téeméeri nit waaye bu ñu demee def seeni lënt lënt bu ñëw bu amadou ñëwee bu waxee rek imaam bi day wax ne ñoom kon defuñu dara mu ne mu ne Amadou moom bañ ko ba mu juddoo rek wàcc ba léegi xamuñ ci moom lu dul mbaax ak njub ak ragal yàlla mu ne moom ba mu xamee Amadou ñi nekk ay xale nekk ci daara ji ba jamono yàlla ji kenn mën ta taxaw seede ne ah, imaam Ahmed mii dafay fen eh, mu ne it jaamukatu yàlla bu dëggu la it mu ne nag nii am imaam mel nii du lu fu mu lu mu for du lu mu jéggaani lu nee na lu mu nàmp la rek te moom yàgg na ñëw ci kër gi di fa fanaan kër gi R plus 3 la la fay fanaan ci nit mënuñ ko wax waaye bu xasee nodd fajar góor gi buntu néeg bu nekk dana ko fëgg ñoom ñëpp danañ wàcc dem julli ji ci yàkka ji ñëw kenn ku ne booy tëdd nga tëddaat wona hunde ganddanɗa hoorema wona wona hunde baɗo triché mu ne lii Amadou nekk nii yéen ngeen ciy soog a teg seen bët du lu mu jéggaani du lu mu for du lu muy photocopie ci mbedd mi loo xam ne def ko namp ci ñaari def daf ko namp ba pare dafa nekk ci deretam jimo goto wiyatno fa tusbiha tajri fikum min tiladikum maganimu shatta min ifali muzannami a faami de ɗum ko jibinande ko jibinande mu ne ne lii Amadou nekk nii dafa judd rek fekk mu ne lii lu mu donn ci baayam la te man xam naa ci dara man mu ne ñi ngi koy ñaanal yàlla moom imaam Touré mii yàlla na yàlla guddal fanam mu ne suñu jigéen yi nga xam ne ak ñii nga xam ne dañoo def benn del forte délégation bàyyi jóge fu ne ci dëkk yu fasanto yi ñëw ànd ak moom mu ne imam Touré mii boo duggee ci kër gi loolu ñun am nañ ci firnde munoo xam ba xam kii mbokk ak moom da nga yaakaar ne ñëpp ñoom la bokkal koo gis ku mu gisantee rek danga yaakaar ne kii la bëgg ka ca des kala ko gila gila subak gila salatu ha foof ne adda haaju mum wona e famille makko tan goto foof ne adda ne deeyamo ne mu ne bu xasee bu xasee julli ji fajar ba ñëw ba tijji buntam bi ba keroog muy tëju guddi di tëjuwaat ci buntam bi mu ne kenn ku nekk dafay ñëw di indi soxla te du ko gàntal nee na day fanaane nekk ci kurus di du ba mu jug fi mu toog di wiir du dafay nelaw mu ne soxla yi yi nekk ci mbokk geek xarit yeeg dëkkandoo yëpp ci boppam la nekk mu ne ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dundal ko yàlla barkeel ko ak Ousmane mii nga xam ne dafay nekk moom sunu mag la ba pare nekk kenn ci ñun eh, mu ne Ousmane nit ku baax la ku mën a jokk mbokk la ku jullite la ku laabir la mu ne ba ñu nekkee ay xale bu ne amee lënt lënt ñuy jote seen biir moom alaaj Ousmane moom mooy ñëw dox ci diggante yi defar ko ba mu rafet mu ne loolu nag sant yàlla la mu ne nag moom lii muy seede nii du luñ ko may du luñ ko sexal du luñ ko dig li muy wax daf koy wax digganteem rek ak yàlla te lu mu dund la dund koog moom teg ci man man naa wax benn firnde bu tuuti góor gi baayam daf maa mës a wax ne ma dañoo julli timis ba pare ci jàkka ji mu ne ma dama yërëm Amadou waaw mu ne ma dafay xale te yéen li mu yéen dafa diis attanu ko waaye bés yi mujj góor gi avant muy nelaw teguñ ci fukki fan ak juróom muy nelaw mu gaañu dama ñëw foofu julli si gee ñun dëkkuñu ma ak moom dañoo sore waaye damay ñëw ci moom du ñu toog ñaari fan du ñu gisante wala ñetti fan ma ñëw julli gee ba pare góor gaa ngi toog di wir du ma ñëw nuyu ko mu nuyoo ma jàmm sant ne ma mu ne ma gëñ a gisee tuuti. su ma toogoon ñetti fan ñeenti fan ñëw ma ci kër gi moom góor gi moo jël téléphone am woo ma ne ma ci lan nga nekk fan yëpp suma la ma sol sama dàll ñëw ci kër ga ànd dafay toll foo xam ne yéen seen ànd kenn ku nekk du moom sa bopp ndax dafa am lu leen tënk mooy nekkatul man ak Ahmadou nekkatul man ak ay rakkam nekkatul man ak alaaji Ousmane nekkatul man ak imaam nekkatul man ak keneen ak keneen day nekk aadama ak xawaa ba illaa yowmal qiyaamati kon mbokk googu dañ koy sàmm góor gi ma ne ko man de dafa lu ma bëggoon mu ne ma bàyyi lan nga bëgg a wax mane ko ñun yaa ñu jur ci farata ak sunna nga dundal ñu yóbbu ñu ci daare yi ñu jàngi mokkal alquran nga yóbbu ñu ci bërëb yi fasantuku ñu jàngi ci nga yëkkati koom-koom jox ñu ñu liggéey waxtu takk jabar jot nga den takkal ñu jabar kon yow wàccoo nga ak ñun te li mu defal imaam Ahmad mii nga xam ne mooy doomam mu jur ko ci farataak sunna noonu la defalee ñeneen ñi nga xam ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah rek moo dox diggante ak ñoom mu nekkoon nag un serviteur mu nekkoon koo xam ne dundal na ci wàllu meen dundal ci wàllu gaño jëriñ jirim jëriñ dëkkandoo yi jëriñ ku baax jëriñ ku bon kooku mooy baayam ma ne ko kii dama bëgg nga ñaanal ko yàlla dama bëgg nga ñaanal ko yàlla yàlla barkeel ko yàlla dëgëral ko ndax man am naa yëqin leer na ma leer yàlla ni maa ngi ànd ak moom soxnaam si muy denc man maa ko ñaani woon kon xam nga loolu lu sori la diggante bu sori la ma ne góor gi kii damaa bëgg nga ñaanal ko yàlla yéen bi yàlla yool ma dal ko ko te incha allahu rabbi boo ko ñaanee yàlla yàlla dana ko nangu te ñun am nañ yaakaar fi nga tegoon sa tànk foofu rek la teg tànkam wax jooju bañ koy wax bañ koy responsabilité moom gën na nekk xale kër gi rey ordonnance ku ko soxla ci moom ngay ñëw sondel buy takk moom moo koy jënd lu ñuy rey ca kër ga moom moo koy dogal kon kii yàlla def ko baaxal démb tey soog a ñëw na ñaan yàlla nag ci barke alquran ci barke boobu nekk ci moom moom balaa muy jóg fii ñun mbooloom yëpp mu ñaanal ñu yàlla ci barke boobu wàcc ci ñun asalaamaaleykum eh, qad yaashiqu lmaru man laa maala bi yadi wa yukrahu lqalbu man fi kaffihi dahabu qad yaashiqu lmaru man laa maala bi yadi wa yukrahu lmaru man fi kaffihi dahabu maa qiimatu nnaasi illa fi mabadi'ihim lal majdu yabqa wala al alqaabu wala rutabu maa naala mahmadatu rrijali wa shukrihim illa alsabuuri alayhim almifdaalu maa naala mahmadatu rrijali wa shukrihim illa alsabuuri alayhim almifdaalu tanfadu almaalu wa yabqa almajdu wa likulli dahrin dawlatun wa rijalu wa likulli dahrin dawlatun wa rijalu ida aata alqalila fatan sharifu fa inna alqalila maa yuqika zeynu wa in takun il atiyatu min la imin fa inna alkathira ma yutika shaynu inna alkarima ida raa ayban satar inna alkarima ida raa ayban satar wa ida allaimu wa amma allaimu ida raa afsha alxabar anta alkarim wa aba'uka kurama inna alkarima ida raa ayban satar wa amma allaimu ida raa afsha alxabar jazakum allah xayr farihna gaaya te te te bay bay bay boo daal ñu ñaan ndax xam naa ne leneen lu ci dolli ko moom ah, ah, ah, a a ya xaaliqa al insani wa malika alzamani walmakani barik lana fi kulli badwin wa hadari barik lana fi kulli badwin wa hadari wa kulli ardin zati ma'in wa shajari wa kulli ardin zati ma'in wa shajari وفي المدن بارك لنا في المدن وفي المدن بارك لنا في المدن وفي القرى وفي ازدحام السفن wa fi lqura wa fi izdihaami sufuni wa hab lana tawfiqa fi lasbaabi wa hab lana tawfiqa fi lasbaabi wal amna fi zihaabi wal iyaabi wa hab lana tawfiqa fi lasbaabi wal amna fi zihaabi wal iyaabi wa hab lana sacaadatan fi lazali tanzilu bina cinda xuluuli lajali wa hab lana sacaadatan fi lazali tanzilu bina cinda xuluuli lajali bifadlika aljalili rabbi asaluka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 imaam du bàyyi waaye waaye sëriñ Ahmadou nee na na Cerno Ousmane ñaan waaye Cerno Ousmane ne sëñ Ahmadou mu ñaan ne ñoom ñu ubbi ñaan bi imaam Ahmadou tëjal ko fatiha ayatul kursiyu xul huwa allahu ak salaat bu waay man ku ko man def ko ku ko waxul moom amin moom yomb na tey dugal nag say aajo yëpp amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin imaam ahmad mooy tudd na nasaluka bi asraari ilmika wa xazaini asmaika an tusalli wa tusallim ala sayidina muhammad wa an tajcalana min kulli amrin farajan wa maxraja wa an tajcalana min kulli amrin farajan wa maxraja wa an tajcalana min kulli amrin farajan wa maxraja wa ya azima alkawni kawwil lana bugyatana bi qawlika lil ashyaai kun fa yakun ta nushahida sirra alijabati fi kulli shayin ya aziman yurja li kulli azim allahuma inni nauduka min alhammi walhazan wa nauduka min alajzi walkasal wa nauduka min aljubni walbuxli wa nauduka min galabati ddayni wa qahri rijal allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxatimi lima sabaqa nasir alhaq bilhaq walhaadi ila صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين kon gaay yi nag ba déwén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 لا